Euh, atelier bi forum civil euh, moo ko initié ak euh, partenaire am convention des jeunes reporters du Sénégal ak ONG article 19 arti atelier bi dafa dañ ko def pour journalistes yi donc moo tax ñu dem ko ak convention des jeunes reporters ci cadre vraiment encore une fois ñu fexe ba renforcer seen capacité maanaam gën leen di xamal lan mooy loi sur l'accès à l'information lan moo nekk ci texte yi su fekkente ne jàll na te lit gën a tax do forum def ko mooy wax dëgg yàlla ba nii Sénégal amagul loi sur l' accès à l' information te soo xoolee daanaka réew yi ñuy wër yëpp ñoom déjà am nañ loi boobu te ñun bi ñuy lancé processus bi pour am loi boobu boobu réew yooyu xalaataguñu ko mais ñoom dem nañ ba romb ñu te Sénégal ba léegi fi mu nekk nii amuñ loi sur l' à l' information moo taxoon ñu ne nañ initier atelier bi comme ça vraiment encore une fois jokk ñu gën a conscientiser parce que loi boobu njëriñ la pour askan bi yëpp njëriñ la pour askan bi yëpp mais surtout aussi su fekkente ne adopté nañ ko njëriñ lay doon pour journaliste yi ak technicien des médias parce que loi boobu day day day def droit nit ki mu am accès aux informations notamment à certains documents n'est-ce pas donc là c'est un droit et par conséquent loi boobu suñ ko adopté obligation lay def ñu yore euh, document yooyu ñu jox ko ñoo xamante ne dañ koo soxla parce que ñoo ñu la ñu tuddee les ñoo ñu effectivement dañuy am obligation su ba mu ba mu des yoo xamante ne parce que loi bi aussi day prévoir il faut le dire am na yenn yoo xamante ne nit mënul accès ci accéder ci lépp mais loolu aussi loi yi dafa wax ne même su fekkente ne dafa am yoo xamante ne mënoo ko kii nañ ko def mu leer ba nga xamante ne nii nit ki du lu ko neex mu dugal ci loolu donc là mooy exception pour tout yooyu loi yi da koy tere parce que loi boobu pour montrer que dafa am importance même au niveau continental maanaam au niveau de l'Afrique dafa am loi type continental donc mooy kon réew bu nekk sooy tëgg sa loi fexeel ba sa loi bi mel ni loi type boobu mooy parce que effectivement bëgguñ euh, simplement nit ne am naa loi bi rek fekk loi bi vraiment encore une fois amul benn njëriñ parce que bu fekkee loi bi dem na ba exception yi tax na ba mënoo appliquer dara ci loi bi kon boobu du am am sens donc moo tax wax dëgg yàlla forum civil ak euh, partenaire am yi parce que aussi il faut le dire euh, forum civil ci processus bi defe naa moom moo ko njëkk a tudd loi sur l' à l' information au Sénégal boobu article 19 ubbeeku ubbeegul Sénégal ci année yooyu nag la article 19 ubbi biir bureau ci cadre boobu naturellement partenariat bi dafa kii parce que article 19 ci affaire liberté d'expression ci lay ci lay yëngatu euh, convention des jeunes reporters aussi comme ni ma maa koy wax léegi bi ñuy ubbi affaire bi ñoom tam ñu ngi liggéey bu baax ci lii parce que ma mi ngi mu ngi koy rappelé wala man maa ngi koy rappelé defe naa ne def na ñeenti atelier yoo xamante ni nii lépp ci cadre ni ñuy fexe ba loi sur l'accès à l'information bi ñu adopté ko muy loo xamante ne vraiment njëriñ lay doon pour ñëpp surtout pour journalistes yi def seen liggéey duñ tiit par exemple lan moom ma ciy fekk parce que effectivement donc là dina permettre journalisme d'investigation dina permetre donc soo soo leen bëgg a def ay enquêtes ngeen am facilement accès aux documents yoo xamante ne di ngeen mën a liggéey sans ngeen am jafe-jafe. parce que effectivement comme loi bi moom ci boppam mooy wax exception yi lan la lu bokkul ci exception. ku ku ko ku ko yor wala ku ci ku ci liggéey kenn mënu la jàpp mais la donc là da am recel de document parce que effectivement loi bi day euh, encadrer strictement limite yi donc là ak kan moo koy joxe par exemple du nit ku mu neex mooy ñëw rek mu ko neexee mu apposer ci benn document euh, confidentiel wala strictement confidentiel ou bien top secret n'est-ce pas donc loolu lépp loi yi moom moo koy encadré ce qui fait vraiment encore une fois comme nit ki am na yenn yoo xamante ne nii dañ ci doon def document confidentiel loi boobu suñ ko adopté dootul mën a nekk document confidentiel voilà mooy li ma wax ci départ bi parce que Sénégal wax dëgg yàlla réew yu ko wër am nañ loi yi te ñun bi ñuy tàmbali loolu boobu Sénégal boobu loi ñu dëkk yooyu sax xamaguñ par exemple lan mooy loi sur l'accès à l'information parce que processus bi comme ma waxee minimum mat na 15 ans parce que forum civil moo ko njëkk a def je me rappelle premier draft bi euh, donc là ça date d'avant 2010 ci commencé woon liggéey nest pas dem ba 2000 draft euh, premier draft bi de plus en plus dañoo dem ba euh, yemul sax entre forum civil ak article 19 dañ fa dem ba ñu am comité national sur l'accès à l'information n'est-ce pas boo xamante ne ONG des droits organisation des droits de l'homme yi des médias CORED convention des jeunes reporters SYNPICS ñoo ñëpp demoon nañ ba dugg ci comité bi mais malgré loolu bët nii amuñ loi bi moo tax tey wax dëgg yàlla atelier bi ñu def ko te ñu ngi xaar wax dëgg su ngeen di génn ci atelier bi ngeen gën a xam lan mooy njëriñ bi également loi sur l' accès à l' mais également ngeen yokk ci plaidoyer bi pour vraiment ñu dem pour avoir la loi boobu incha allah